ci laa bëggoon a yemale épisode yi pàcc yi ndax fukkeel bi ak juróom-ñett mooy daje ak bisub màggal gi ma ne woon nag dama koy yemale mu tey yi nga xamante ni suba la màggal waaye am ñu ma wax ni ma bisu màggal gi dana am ñu am jotuk teewlu ko wala bu màggal gi jàllee ñu teewlu ko kon damay ñëw ak yéen ci fukkeel bi ak juróom-ñaar di xool na ba xam ndax fukkeel bi ak juróom-ñett danañu ko indi ndax màggal gi dina tax nit ñi duñu am jot déglu ko wala ñu indi ko buñ ko dégluwut ci màggal gi it bu màggal gi jàllee ñu déglu ko kon ginnaaw nuyoo bi ak ziyaare bi ni ma ko doon defe rek ndax kuy wax ku nekk ña déglu am na ñu àq ci yow kon ci pango yi tàmbalee ko ci kippaango ga nekk Amérique di support xam sam réew sëñ Bamba Mbengue ñoom ak sëñ Basirou Fall daaray sëriñ Moussa Ka ñu jébbal nuyoo bi sëñ Abdoul Ahad Ka sàmm sunu mbatit Ablaye Cissé kippaango gi nga xamante ni mooy cosaanu senegal it ñuy jébbal nuyoo beeg ziyaare bi sëñ Cheikh Awa Balla Gaye ngir mu jottali nu ko mbokk yëpp mbokk yi kon damay ñëw ak yéen ci fukkeelu pacc bi ak juróom-ñaar di dix-septième épisode xam ngeen ni ci fukkeelu pàcc bi ak euh, juróom-benn ñëwoon naa ak yéen ci atte bi nga xamante ni atte nañ ko Samba Lawbe Penda ba Jolof ci ay tappale li tax ma indi ko nag dafa am ay murit yoo xamante ni war nañoo jéggalu Samba Laobé Pène taalibeeb Serigne Touba boobu nga xamante ni jébbalu ci sëriñ Touba moo tax ñu génne ko réew mi yóbbu ko ci réew mi ñu yóbboon Serigne bi ba ci wàccaayu màggal yi rek dégg naa benn waxtaankat mu naan Samba Laobé Pène dañ ko fay lemp ba mu lekk ko tubaab yi laaj ko ko mu ni leen Cheikh Ahmadou Bamba laa ko jox moo kalaame sëriñ bi te loolu so rek li am lool ndax e, tubaab yi lay yi ñu doon lay te mu indi ko ci fukkeelu pàcc bi ak juróom benn ngir bëgg koo wàcce tax na ñu ni fayu gi mu waroon a fayu lempo bi ànd ceeg ak dëgër ba nit ñi fay lempo defu ko ba ñii dañuy fay ñii duñu fay lempo bi dafay yéex a dugg waaye loolu yëpp la tax ñu yóbbu ko wax nañu ko te mooy leetar bi nga xamante ni bëggoon nañu fu ñu mën a sukkandiku ngir folli ko yóbbu ko gabon ngir mere ko te wax nañu ko lii la directeur des affaires indigene nee na moom Samba Laobé rek la gis ci koo xamante ni bi ñuy jàppi sëriñ bi dimbaliwu leen koo xamee ni itam amul benn kalaame wu bàyyi ko ci moom ñëw ci tubaab yi euh, ngir kalaame sëriñ bi danañ daal amul benn information boobu nu jox ci sëriñ bi loolee nag ban koy naqar lu far nu am ab leetar bu gën a leeral mbir yi wane ni Samba Laobé mi ngi bind sëriñ bi ko bu ñu far mànkoo dama bëgg ànd ak yow nu xeex tubaab yi te loolu ma abduloo di fara biram loo moo ko bind waxoon naa leen ni tubaab yi booy liggéey ak ñoom teewul am na fiche individuelle bopp say mbir lañ ciy bind bii yëpp jàllee bi nu demee ba gis fiche bi li ñu doon bind ci euh, ma abduloo di fara biram loo ña ngay wax ni fara biram loo day jàmbaar la waaye nag dafa bëgg nguur te moom fu mu nekk rek daa bëgg a nekk ca njobaxtan la moom daa bëgg di yilife te kenn du ko yilif moom na jàmbaar la ndax moonu jàppale woon ci lu nekkul ci ay kàcci ba nu folli Samba Laobé buur ba Jolof yóbbu ko Gabon kon li ma leen wax ni Chaudié lii muy bind di ko wax xam ne ni du dëgg ñoo ko form ñoo ko complot ndax ñoom ñoo bind wax ni moom moo nu jàppale ci lu dul dëgg ba nu mën a wàccee euh, Samba Laobé Penda ñoo wax itam ni fuñ ko mas yóbbu rek bu demee ci wetu kooka day bëgg a def ak rey donn dana def lu man ngir kooka daanu mu wuutu ko dem nañu bay wax ni ba mu suuxloo buur ba jolof Samba ba Penda ba nu wàcce ko fal Bouna alburi yebalaat ko ci Bouna def ko fa résident ba mu eggee rek dafa daal di tàmbalee fexel Bouna ba loola tax nu jële ko fii yóbbu ko Tiwaawan ba ñu demee yóbbu ko euh, Tiwaawan Maysa Mbaye Sall ak eh, Demba War moom it ba mu demee Tiwaawan dafa tàmbali di leen fexeel moom daal ak rey doon na la woon goog eh, ku ñu ko yóbbu maanaam borom ndomb ak tànk gu jël ma Abdouloo yóbbu ko ci sawet la muy fexe mooy rey la donn la kon noo ngi woon ci rapport walla lettre bi nga xamante ni Chaudié ma ngi koy bind le ministre des colonies mu ni nag moom Samba Laobé yow ministre bi maa ngi lay xamal ni lettre bii nag ba mu feeñee nu gis ni def noo wor nun ñi ko faloon ci lañu jël ab dogal ba gaal géej gi fi jaar tey ci suba jëm Gabon dugal niñ ko ci mu ni nag yow ministre maa ngi lay xamal ni wàcce gii nu wàcce Samba Laobé Penda ak japp gi nu ko jàpp ca jolof naqariwul waa jolof ndax amuñu ci benn jafe-jafe benn accident amu ci ab yëngu-yëngu amu ci dan koo wàcc rek dal di koy wuutal dal di fay wuutal buuna njaay di doomi alburi mu ni nag alburi euh, buuna ndaw la fi tollu ci fukki at ak juróom-ñeent jàpp ñaar fukki at ci lay tollu waaye moom Bouna nun tubaab yi yar noo ko école des otages ba mu fa amee lam fa war a am jàng ko ba noppi itam yóbbu ko collège bu nekk Tunisie ñu di wax collège tey ku dégg sunu làkk wi la di français daf koy làkk tey fu mu toll mi ngi wone taq gu mu taq ci nun ndax noo ko yar te fal gii nu ko fal it neex na waa Jolof ndax baayam doonoon na buur ba Jolof ak famille Ndiaye bi mu mbokkitam askan wi mu mbokk itam askan wu kawe la ci Jolof mu ni ko ñi àndoon ak Sàmba Lawbe Penda gënuñ koo jege ñu ci bari àndoon ak Sàmba ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ak Buuna Alburi nekk ci gannaawam di déglu ay ndigalam waaye moom Buuna Alburi moom it nag fal gi nu ko fal te at yi bariwul jàpp fukk ak juróom-ñeent ak ñaar fukki at moo ma am xalaat nag ni ndaw lu toll foofu daal fal ko ba noppi di ko seetaan mën naa indi ay njuumte sunu ko bàyyee muy doxale na mu ko neexee rek ay njuumte mën naa am dañ ko war di lu ñutu dafa war a am dañ ko war di contrôler loolu nag dogal bi nu ci jël mooy chef supérieur waalo di Yamar Mbodj bokk ci chef yi nga xamante ni noo leen fal di ku yeew di ku nu déggal mana a ñàkk bakkanam ngir nun la cause française jaral na ko lu ne mu ni ko nag moom Yamar Mbodj moomu la ñu wax mu jàppale buuna mii ñu fal te ay atam bariwut di ko digal di xool ni muy doxale di xool ay jëfam waaye nag moom yamal dañ ko wax na koy diggal rekk di ko xoole waaye nag munu ko wuutu munta jël ab dogalit ci jolof buuna alburi mooy buur ba jolof waaye yamar bii nga xamante ni sunu waaye ànd ak nun yàgg ak nun moom la ñu wax na koy jàppale di ko xool te di ko xelal di ko dëggal beneen dogal bi nu jël itam ki nga xamante ni mooy Fara Biram Lo di ma Abdouloo moom it ndomb tànk nga mu yoroon ca wetu euh, Samba Lawbe te moo doon résident ndomb ak tànk googee bàyyi nañu farabiram loo muy maa ma abduloo ci wetu buuna alburi ngir mu doon fa résident kon mooy li ma doon wax léegi gis ngeen résident lañ ko defoon ci wetu Samba Lawbe muy tuumaan Samba Lawbe dem banaan Samba Lawbe dafa may sëriñtu teguma fenn waaye biñ fa jëlee Samba bi fal Bouna Alboury itam dañu ko fa bàyyi mu doon résident waaye waxoon naa leen ni soo demee ci fiche individuelle am boobu nga xam ni c'est confidentiel ña nga cay wax ni biñ ko indee ci wetu Bouna Alboury itam dafa daal di tàmbalee fexeel Bouna Alboury ba loolu moo tax ñu jëlee ko fii kon nee na Fara Biram Lo bàyyi nañ ko ak nombak tànkam googee mu doon résident ci wetu Buuna Alburi buur ba Jolof mu ni ko nag yow ministre bi daal nii ma la ko waxee Fara Biram Lo muy ma Abdu dana nek ci wetam lolou nak taxna ñu yaakaar ni dal doxalin wu yes wi ak njit yu yes yi nu wut ci Jolof ta njit lu yes li di Buuna Alburi mom mo nga xamanteni li tax tuba bi baxul ñoo ko dugal école yar ko dégg nga mu ni sunuy xel ak sunuy xalaat sunuy idée ci la naan ba màndi maanaam noo ko yar jàngal ko kon moom wuute na ak Samba be mi mu wuutu ndax moom mi moom sunuy xel ak sunuy xalaat lan ko sol ba mu fees te moom ku xam sunu mbatit la ak sunuy doxaliin naan na ci ba ni nuy doxalee it noonee lay doxale bokkul ak euh, sàmbalaw bi mi fi mi ñu fi follee li mu bëgg a wax daal mooy euh, Bouna Alboury nun noo ko jàngal forme ko ba daanaka tubaab bu ñuul la sunuy xel ak sunuy xalaat moom la yore loolu moo tax nu yaakaar ni balay yàgg rek jolof dana tegu ci yoon woo xamante ni bii dana yokk ci wet gu nekk ci koom ci koom-koom bay ak sàmmak ak yooyu yëpp daal ak seen buur ba jolof bu bees bii di al Alburi nga xamante ni noo ko formé mu yor suñuy xalaat yaakaar nañ ni Jolof dana soqaliku ci kilif teefam signé Chaudié soo demee ci archive Sénégal référence bi mooy B2 bar 36 lettre numéro 106 du 6 janvier 1896. Euh, kon mbirum Samba l'État Penn li taxoon ñu dellu siwaat ci rek a dafa lëkkaloo ak mbirum euh, sëriñ bi ak jébbaloom ci sëriñ bi moo ñu xeex ko tuumaal ko atte ko ci lu ba yóbbu ko euh, Gabon li tax Chogué ma boole ko ci nooni sëriñ bi moom fekkantewul ak sëñ bi Sénégal ndax bi sëriñ bi daataan jóge Gabon daw na dem France fekkantewu fi ak sëñ bi waaye xeex na sëñ bi ndax bu fekkonte ni le cinq septembre fi la ko fekk lii euh, mute dogal loolu kon it moom loola lay dogal ndax fekku fi sëriñ bi waaye kàcc yi nga xamante ni bii ñoo ko def bind lu leetar wax ni Samba Laobé day bëgg a ànd ak sëñ bi xeex ak nun ba mu koy bind itam xamoon na ni du dëgg te teewul euh, bind na ko waaye euh, teggi na ab naram ci tong-tong yi noonu sëriñ Touba ndax ku amoon garaat la njëkk a doon gouverneuru AOF bi mu wàccee ndakaaru ñu teeru ko liital ko feetal ko jël ko gaal gu ndaw mu yóbbu ko euh, ndar ba mu eggee itam palais gouverneur ñu teeru ko naan seen champagne ak lépp fan la mujj tawati ngas fièvre jaune am fi mu laal li daw bàyyi fi ndomb ak ak li mu waroon a gérer ñi mu ko plainte mu dem France ñu summi ko toroxal ko dàq ko fu ne jaar na fa ngir bëggoon ñu falaat ko waaye ci torox toroxtaange ci la nekk ba na mu faatoo kon moom itam jot na ab naram ci tongtong yi bañ Serigne Touba soo demee ci téere boobu di ma bind ci nooni Serigne Touba yi muy ci Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu que sont devenus ceux qui ont essayé d'entraver la mission di nga ca fekk narub chaudie kon mbokk yi eh, mel na ni far fukelu patch bi ak ñaar wat dañ ko ci Samba be kon xamna dina ñew ci fukelu patch ak ñet muy doon bi muccu di Fukelu fan ak juróom-ñett ci safar su ko bokk yi mënta déglu ci màggal gi itam bu màggal gi jàllee ñu déglu ko kon maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen jox dox daje ci pàcc ba mujj bi di fukkeel bi ak juróom-ñett